tamit dama mën a xam man moom lu ma ci mën a wax rek mooy dafa ñëw suma kër bu yàggul seet si ma. moo ko ngëyee mooy ki ñu taxawaloon si léegi. ñoo àndoon ñëw ba kër ga seet si ma ñoo am ay kàddu ñu dem dénkante. yàlla def ñu toog tamit aussi waxtaan lu yàgg yàgg yàgg yàgg xam nga boobu am na sax lu mën a waajal loo xam ne surprise dama ko bëggoon defoon tey aussi tamit yàlla def tamit ñu bokk sant xam nga bokk tamit aussi ay maam pour ñu koy mën a waxee lim la doon waajal loolu man moo ma jàngal musique moo ma ci dugal ndeysaan dëgg la du seey ndeysaan dëgg la man dinaa ko def ci kattan yi incha allah rabbi waaw ah, muy mbéygee ndeysaan waaw jërëwaan Moussa ndeysaan ah, soobee yàlla ndeysaan waaw ci doole sëñ Fallou man dinaa ko motal incha allah ñu toog na waxtaan waxtaan yàgg moo kii ñu ànd ndeysaan mu nekk xaritam benn bakkanam xam nga foo leen di gis ñu ñaari indi ba pare tamit aussi sonn na ci trop wax dëgg yàlla xam waaju ko bëgg la ndeysaan moo tax ba mu ba action bi amee man dama fàtte sama bopp moom laa xalaat xam maa ngi koy ñaan yàlla fu mu jëm xam nga yàlla na ko gën a fu mu jógee yàlla ko yàlla xarit ci àddina fi daw si yàlla mën na ko yàlla def yàlla na ko yàlla atte ci yërmandeem incha yàlla na ko yàlla jégal bépp baakaaram